fight. Salam alaikum internautes yi man la princesse alias madame Balde donc là nous vous remercions vraiment ci seetaan bi au nom de toute l'équipe de Fatima nous nous excusons encore une fois pour le retard ndax franchement xam ngeen ni que production maintenant na trop trop trop mais nous faisons de notre maximum juste pour vous satisfaire donc léegi nag instant bi nous ngeen soutenir mooy di seetaan di partager di liker N'en Fatima mu ci yeneen i fànn lay ñëw beneen épisode bu bees yeneen épisode yu bees dina neex man princesse maa ngi ci biir bu leen ko raté mes amours Mohamed télé bi yaa ngi koy seetaan eu yow xam nga ni saal bi yaa ko moom man duma seetaan télé loolu nag laa xam télé laa toog di seetaan gis ci sa ndaw soosu Fatima Fatima ci télé bi mu ne papam dafa réer réer sama bët sama nopp kenn nettaliwu ko. waaw yow xàmmee ma Fatima de. Tonty Ninja maa ko xam. eh waaw bi mu fi réeree noonu ki fi ñëwoon di ko seet kooku du papa. waaw mooy papa. ah papam ñëw di ko seet mu toog ci télé bi àddina bi yëpp di ko seetaan mu ne papam lay wër. yow man xaar sax man moytul sa bopp de. balaa nga fii réer yow ñu yóbbaale la coppet. na. turki jam ak luus xale bi heure bu ma ko xoolee sama karawu yaram yu jug ma ne la moytul sa bopp waaw baax na. allo yow lan la loo may woowee Mouhamed. bàyyi ma tout tranquille ngir yàlla yow mënoo ma bàyyi yow man dama la bàyyi toute façon yéen yéen ñëpp a yem yéen xale góor yi yéen ñëpp a yem man xam naa lu tax sax mosuma laa nangul yow Mouhamed yow sa sa yaay moo ma gis télé loolu moo tax nga woo ma <laughs> yow duma la sax faale yow baadoola nga yow dama foogoon sama nit nga mais doo sama nit yow bu ma amee naqar war nga mën ma taxawu man fu nekk jàllale naa ko sam pap mais jàppale ma benn yoon gisuma la benn yoon mais nag xoolal lu waay def rekk sa bopp xoolal bàyyi ma tout tranquille te bu ma woowaat boo ma gëjee gis classe nga war ma mën a woo xool sax ci lan laa nekk dimbali ma waa yow bu ma woowaat uma ou outra. diagnose, elle commence à m'inquiéter vraiment. Qui fait mon nec Oui, là, madame, ça va gâter là, parce que là, ça Oui, là, ça m'a Boy, khang, khang, khang, boy. Tại ông mua được. Ise. Wow. Boy, cái gì không mà sự thì cũng bố. Vậy, topol này, mình boy, đêm lại rồi. Nhóm gia cầm bay. yagi bëgg joomal de bàyyi Kumba Gawlo sék ñu lay way wa mais do ñëw ñu dugg studio geen ma ngi di préparer projet ñëw ñu dugg studio ma invité la futur yi yow xale nga duma ma dugg yow studio yo la xam dara fo toj way saway saway xanaa ko man yéegoon na man damay way waaye yow way tojo fenn eh man ma ngi wëy instant bi ni commencé naa samay projet sa saway ñëwal ma duggal studio dégg na wa koñ ba nga koy wax mais man xamuguma ci lu ma ci leer légui yow dóoral ben mo sama déglu li la ñuy wax Sénégal da ngay wax sa fula ñukay jafé jaxan caaxaan boy ay eh, xale ngeen mëno way yow looy way loy way

Fatima. Oh, oh boy boy yaa man. doo seen maas doo seen morom. moo di wax dégg dégg. waaw booy eh saa kaay. yaa ngi ci jàmm ndax mu doo nga daara. maa ngi ko mais oui xaaral dégguma la bu baax waaw allo mhm, ça va yaa ci jàmm waaw waaw ah da ñëw waaw ok baax na maa ngi sama beneen kër bi donc boo ñëwee def ma si woo ma. Bébé Rose fan la war a mën dugg ñu commence dox heure bii saa waay ah pareegul yalwaan fan pareegu ma yalwaan dama ah, matalagul moo tax matal mooy lan yalwaan lu ci matal wuti heure bii boo matalul heure bii ngay dox ah waaye ma jàppale la rek man li ma waroon naa ne fonde laa fi yor fii de waaw ah, ma jox la ko rek toog am am baax na jërëjëf baax na waaw baax na boo ëllëgee bul dox yenn na yi nag boo motalul tamit demal nga ñibbi wóorul quoi dëkk bi dafa tar quoi wóorul alo saa xoolal booy bi nee rek booy yoon hmm. mais lii kañ lañ ciy wax kañ lañ ciy jug mais taal xoolal xoolal xoolal kii nga xam ne am na avenir waroon na tey jii mën a yor famille mais xoolal nga nga koy bàyyi muy traîner fii di taxawaalu mais ñi bu ñu feebaree ñoo ngi faju ñii ñoo ngi lekk ba suur est-ce que ñii ñoo gi dund kon ñun nañu dund ñuy dundee booy mais kii waroon na mun a liggéey jàppale ay famille daara yi waroon nañ ci mun a instauré ay ay métier gars di ci liggéey boo demee ba mat nga war a mun a liggéey di jàng alxuraan mais yalwaan ba kañ yalwaan koo yalwaan loo laa da nga koy taayal loo lii du yoon hmm. lii war nañ cee mën a jóg yéen war tas xam nan yalwaan sax ndax yalwaan mënul ñàkk mais benn heure bi boo yalwaanee nga dem kii benn heure bu jeexee nga dem ñibbi dem jàng day am waxtu agression yi bëri na ci dëkk bi temps yi ñëpp ngi ciy wax waaw lu ne nga ay samba booy ngi def lu di sàcc nit ñi di mais dox saa day am waxtu ku dul yalwaan ak ñàkk yalwaan sax balaa ki nga xam ne day wër di yalwaan heure te boo waxee nag gars yi yanu la gayan ah te lii du yoon lii du yoon quoi dégg nga lu mu la wax nee na la matala ko moom matalul ñu dóor ko dañ koy di ko dóor ay yooyu noonu ndax indiwul xaalis yoon kii bu baawam di yow pour mu jàng alxuraan la woon jàngul na alxuraan yalwaan lañ koy jàpp boo koy xoolan fi ne nii xoolal bopp bi liif nawut noonu la demee xaalis bu tum xaalis noonu la demee mooy poussé booy booy alal rek lañ tale saa yi taluñu leneen loolu la na waar quoi kenn mënul wax lépp quoi mais nag jàmbaar nga quoi billaay walaay. ah waaye ñëwal nag góorgóorlu dina ñëw de. waaw ñëwal nag ñoo xam ne ñoo bàyyi sama kii bi rek nekk gën quoi. dëgg la ku nekk sa yoon nekk sa yoon jaajëf. waaw nga dem ba waaye doon ay gars yi. yu sunduur amiin waay amiin ma lay invité ay concert ah ngay ñëw. di baatere baatere. concert yi fi xale yi la man ngay ñëw bàyyi rek da ngay ñëw concert nag bàyyi. Eh, eh, eh, saa saa bu ma rus sa gaañ léegi. waaw sama gaañ nga léegi yow balaa maa ñëw concert ay yooyu noonu yu xale yooyu xalal léegi maa xam ne aay nga nag léegi booy comme lii nii nii affaire dongo yi lay wax ma woy ci maanaam quoi woy ci quoi woy ci benn bon morceau bu ndaw rek ma xool ba xam aay mu ñëw. di nga ah, na dooral. moo ngi dox si naaj bu tàng bi ci digg mbedd mi wala ci sedd bi xoolal taalibe moom de sonn naa di sàkk wala li mu naan. Wahai Budon Need my may papam Kom ah, kedo yaluan Budon Need my may papam oh. Dusa kundimbal Lo Boy don't need Lo Tomorrow magani marché concret ah ca kaw ca kanam. jaajëf ba tey man damaa doon sax sax feccikat. non non non boobu de non boobu de non boobu de jàppal ma ñii rek concert ba nga ñëw seetaan dem. waaw damaa bëgg yow booy da nga maa kontaan lool yëgal sama xol bu rëjee ko bàyyi ma dugg ci biir yóbbu baa bi génn dem ci mayga bi yoruma sax weccet may xoolal damay leb mayga sama gaañan ma. mayga la laal de non mayga laa lay laalal. waaw mais bàyyi jarul ko woon bàyyi leb mayga laa lay laalal espaghetti bu saf sap mbaa mburoog neen ak baax na kon ak baax na maa lay wéy dugal gi nag léegi léegi ak baax xawma nan nga def ba teel a yeewu ba génn xanaa amoo compo. am am naa compo kay. waaw fan nga nekkoon foo jóge maa ngi si buntu kër bi laa taxawoon doon xool papa. si buntu kër gi te nga am composition Pape Cheikh bu yàgg depuis si suba te bi ma yeewoo moom rek laa gis nan nga def ba teel a yeewu ba gisuma la loolu moo ma jaaxal. kon maa ngi si buntu kër bi taxaw doo xool papa. xanaa déggoo luñ la papa léegi mu ñëw rombal ni nga dem solu papa dina ñëw dama nga sol yére. nga dem jàngi yow laay xaar gaawal rombal yow amoo benn jom bu su Pape Cheikh jaaxaluma mais yow sa bos tiital na ma torop

day mel ni man lu ko dal man la dal te lu ko dal ni mën na ma dal mën na la dal dañ koy jéem a jege rek di ko bañ ci sori xam naa ne soxla nañu trop trop trop trop moom ñun rek la am yàlla baax na xam naa li yëpp dina si génn incha allah. incha allah en fait euh, l'autre jour maa ngi doon wax ni euh, pour nga jox ma information yi bi nga xam yëpp ci côté paa bi. pour recherche yi gën cool quoi. ok ok ok. Euh, mais lenn mom jaxal parce que ken déclaré wala man loolu lenn na ma nañ ken déclaré wala yow da nga yakane man guinéen la banan naan man kenn déclaré. non bisaaw guinéen nga. xolal man mairie Grand fb lañ ma déclaré. jël ko muy wax ak sûreté nan non man mairie Grand yof lañ ma déclaré. mais parce que lima lay wax dama ci am lu lèr ah ah oui ah baxna mairie Grand yof dina leer et justement wax nga dëgg mairie Grand yof amoon naa fa benn contact xarma woko woo ko saa yow yaa ngi ciy bëgg sonn de booy jël sa temps rek jël sa temps bu ma déggaloon muy loolu de commencé da li ma la wax rek a ci ne. ah booy maa bàyyi ma def sama liggéey damay def sama yoon de. yow man man maa man maa dul def ay recherche sax naan maa ngi lay woowati yow. man su ma ci waxaatee man yàlla naa doon carte mémoire. <laughs> doo doon carte mémoire ndax xam naa doo ci waxaat. <laughs> waxuma loolu de daa mel ni compo bi yëgoo ko de def sa rose bu baax nii.

ñii de jarul ngay wax nee may def ñu fa dara ak ni ñu soloo nii xam ne composition taxu leen def ñii yàlla rek moo leen def. ñëw pour yow sa carox douche yi nga nga bu jaal. <laughs> cim. waaw ah. Cheikh yow lan mooy sa mooy dernier jour bi tamit. dem wala dem maa ngi dem de tur la ñu dem. Ah. waa kii doo na naka rek. ruusa muy mel ni ku maye ji woon deret ki kay jàng ji woon nee nañ dem ça va. ça va yow. maa benn registre la bu zéro neuf cent quatre vingt cinq waaw année décembre waaw waaw Babacar la Babacar la tudd. est-ce que mën nek tay tay tay? tey ah mënul nekk tey Wa jàpp ci rek soxna ci nak. Wa japp ci rek ah suba rek la mën a nekk waaw suba ma ñew jël ci ko ak quelle heure ok wa wa inshallah rabbi Dina ko jël ci inshallah. Wa am ben problème jere jëf. Jere jëf madame Ndiaye jërëjëf. c' est kii boo beaucoup proposé 1000 francs mu

da nga bëgg ma day ko ko non defal ndànk bul éliminer kenn bul rey bul éliminer bul ko xosi. ok ko tiital ko xamal lu ma la waxul daal. oui comprends. il faut bandi ko ni dafa war def cocc nekk nit. sinon. bu ragal loolu boos. loolu kese la. loolu kese la. impec. voilà tu peux disposer. bébé yow tu as duré. yow da nga xam nan laa def ba génn et puis sax loolu doo ko fi mu daal. Salam, malikum beaucoup internauti man la princesse alias madame Balde donc là nous vous remercions vraiment ci setan bi au nom de toute l'équipe de Fatima nous nous excusons encore une fois pour le retard franchement xam que que production est trop trop trop mais nous faisons de notre maximum juste pour vous satisfaire donc léegi nag instant bi nous ngén ñu soutenir di di partager di liker nee Fatima mu ngi ci yeneen i fànn lay ñëw beneen épisode bu bees yeneen épisode bu bees dina neex man princesse maa ngi ci biir bu leen ko raté mes amours Fatima Fatima